برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان رضي الله عن شيخنا بن عباس بن محمد الجياني عن خليفته وغير السبيل وجارته مولانا علي الحق asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi déglu bu ñu mën a nekk mu leen di yëgal benn fois boo xam ne ci pay bi la aju waaye nag ci doon jiite naa fi léegi yor koor bi lépp waaye dafa baax maanaam ñi waxtu naa fi laa ba naa fi léegi jeex maa ji ñi pour ñu dajale lépp dana ko dimbale te ñu koy joxe itam dana baax si yoon bàyyi boo def moo ko def fii at bu nekk def na ko fii bu pare dajale ko jox kon nag ñu taxaw ci jot ci bàyyi boobu di om mbokk yëpp ku nekk booy ñëw na nga indiwaale li ngay joxe nga jox ko ci guddi boobu barke rek lay nekk réew yokkute rek lay nekk réew parce que ñu xam nga am Alxuraan nga dundalee fa ngir yàlla ñaan fa yàlla si soxla yàlla dafay lépp kon donc yi nekk ci bit yéen ñëpp maa ngi leen di woo ci oto boobu pour ngeen ñëw teew te indiwaale itam ngeen ci yàlla yàlla gërëm jëfi képp kuy jëf képp kuy jëf tamit yàlla faj aajo képp ba déwén mu defam yàlla yokk ci zaahir yokk ci baatin ba xamul ko ko yàlla mu wàññeeku mukk te képp kuy jëf yàlla yàlla barkeel jabar taarix bi kañ jàngale na ko ba sonn na a ko la ko jàngale na ko ba sonn ñu na a ko rek la jàngale na ko jàngalee ci nga Sall wax na ne ah su ñu suma sëriñ la suma sëriñ baay mm. ndax man moom ma jàngal moo tax. ak Cheikh Saxiir si jumaa ji moom bàyyi daf ko digaloon muy jàngalee Cheikh Saxiir ak mu wax ci jumaa ji waaw man xam ne moom yàgg nañ ci jumaa ji lu yàgg la waaw yëpp daf dara ak ci lu dul ñaar yooyu diggante sax ci la jàngale mono waaye ki ko lii la Baye Djibril Faye Baye Djibril Faye bu fekkee ne nekk fi ah sëñ Lamine bi doon guddi ci jumaa ji sëñ Mahi Niass doon guddi ci jumaa ji sëñ Mouhamed Cissé bi ci 74 bàyyi liiroon ko maam Hassan daan liir ci nekk waay ak bu bàyyi nag kee ci côté yooyu waaye ci jumaa ñaar ji ñoom ci am jërëjëf mbokk yi kon ñu nekkoon ak ci maam Cheikh si si jàng ci suñ kon incha allah ngir tëj tëjkaan bi ñu doon def ci naaf incha allah dinañ ci des waat ci lu gën a yàgg ci ay émission jërëjëf برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان